kon pour wax ci mawdu bi balaa ñuy ñëw di ko contextualiser def benn introduction bu ndaw benn tamhid pour leeral dëgg-dëgg cosaanu manque de repère bu ñuy jàmbat ci kaw suuf ba sax ñu war a delluwaat ci diine fan la jóge dëgg-dëgg ci ne lu yàgg la lii am ni tey imtidaat la muy loo xamante ni bi lu jóge ci loolu la lu jóge ci loolu nga xam ne lu yàgg la di xeex boo xamante ni bi depuis ci kaw la jóge bi yàlla sàkkee aadam jox ko cër bi mu ko jox seytaane décla déclaré ko ak nooneel ci sababu soxor gi mu ko soxoree cër bi ko yàlla jox ba yàlla jaare la ko aljana ak moom pour wan ko ay naxam ak stratagème am pour mu jàngee ci loolu yaa bani aadama laa na yaftinannakum sheytaanu kama axraja abawaykum min aljanna loolu moo tax yàlla mun ñu wax nañu seytaane ni mu naxee seeni waajur ba génne leen yéen seen dund gi ma leen jox ci kaw suuf ni ma joxe woon seeni baay ak seen yaay wala boog seen maam Adam ak Hawa ni ma leen joxe woon dund gu dal ci kaw ci aljanna seytaane ñëw nax leen ba yàqal leen teraanga boobu teraanga bi ma leen joxaat ci kaw suuf te mooy xilaafatul ard muy cër bi ñu yàlla jox ci kaw suuf ne wala qad karam naa bani aadam fexe leen ba seytaane bañ leen ko yàqal te nim leen koy yàqalee même stratégie bi la rek mooy nax xeetu nax boobu nga xam ne nax na ko seen maam ba yàqal ko loolu mu mettre ñu loolu léegi loolu moom mooy cosaanu mbir mi dëgg-dëgg bu ñëwee nag li muy def mooy tàggat ay gaawam yoo xamante ni ñoom lay àndal ci mission boobu ñu nekk ci di liggéey ci loolu ni ñuy liggéeyee ci loolu mooy fexe ba njàngale yi nga xam ne moom moo jóge ci kaw asamaan jóge ci borom bi subhanahu wa di njàngale yonent yi ñu yàq ko détruire ko li ci mujj ci li ñuy dund nii dafa am mbir yu bari yoo xamante ni ci la jaar ba ñu agsi fii niveau bi nga xam ne agsi nañ fi ndax bi nga xamante ni jël nañ christianisme romain yi jóge ci seen ceddo gi ñu nekkoon jël ko daal di koy mbubboo ne dañ koy diinewoo def ko mu nekk seen religion officielle seen empire bi surtout byzantin yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon fii Turquie ginnaaw bi nga xamante ni lu jiitu loolu ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy juif yi infiltré nañ religion boobu ba yàq ko ñu jël ko def ko religion boo xam ne moom la ñu dominer seen xeet noote ko seen xeet ne la walee leen ko loolu ñu dund ci lu yàgg mu dem ba am ay xëy na soppeeku yoo xam ne am na ci ginnaaw bi nga xamante ni seen empire bi daanu na religion boobu daal di law dugg ndax religion bi ak culture bi bu romaine bi moom moo daal di law tasaaroo ci Europe ñu continuer ci diine jooju waaye mu nekk ne dëgg-dëgg rôle bi nga xamante ni mooy rôlu diine dëgg jouetu ko dañ koy jëfandikoo ngir noté ko ay nit ngir muuree ko seen xel te loolu moo ñu yóbbu ci l'inquisition bi nekkoon Europe nga xam ne moom lañ terrorisé woon européens yi pendant mille siècles yoo xam ni loo wax loo xamante ni bi dëppoowul ak li église bi bëgg nga wax ko ñu leen la dañ lay rey imma ñu pendre la wala ñu taal la wala ñu jël la tëj la li nga xamante ni bi moom mooy prison loolu terreur boobu di terreur intellectuelle européens yi dund nañ ci lu mat mille ans yoo xam ne église bi teg na ko ci seen kaw comme ay étudiants ngeen da ngeen di def ay recherche ci l'inquisition en Europe voilà bu ngeen ko defee di ngeen ci gis loo xam ne lu yéeme la ngeen jàng l'histoire des Qatar les Qatar euh, Qatar yi nga xamante ni bi benn genre secte la woon boo xam ne ay chrétien lañu woon naka la leen église bi éradiqué massacré leen lu ëpp vingt mille ci ay doomu aadama nga jàpp leen rey leen ci ay fan yu néew massacré leen parce que da nga jàpp ne li ñuy def hérésie la ay hérétique lañ bu ñu waxee hérésie mooy nga gëm pas-pas boo xamante ni dafa safaanoo ak li nga xam ne moom la église bi bëgg ñu gëm ko loolu waral xeetu xam-xam yi nga xam ne yépp moom la nit ñi waroon jariñoo ci jamono yooyu ci wàllu science ak yooyu mënatul woon développé fi nga xam ne mooy Europe ndax bépp théorie boo fa développé boo xam ne ñoom jàpp dafa génn li nekk ci seen ngëm-ngëm ñu daal di lay jiiñ li nga xam ne moom mooy hérésie daal di lay rey faagaagal la te loolu moo gën a favoriser li ñuy tuddee développement wu li ñu tuddee les société secrètes ndax sociétés secrètes yi nga xamante ni moom la wax lu mel ne Rose Croix les Rosicruciens wala lu mel la franc-maçonnerie li ko gën a développé mooy terrorisme boobu wala terreur boobu nga xam ne église bi jëloon na ko teg ko ci kaw nit ñi ci Europe. ndax li ko waral mooy bu ñu waxee ci société secrète yooyu seen ndey dëgg-dëgg mooy les templiers les templiers bi juddu woon ci début douzième siècle bi. nga xam ne ñoom seen rôle moo nekkoon wala onzième siècle bi sax laay wax nga xam ne seen rôle dëgg-dëgg moo nekkoon protéger seen pèlerins yi doon jóge Europe di dem fi nga xamante ne bi moom mooy Jérusalem pour defi ji pèlerinage ñu tàggatu ci loolu di yëngatu ci loolu église bi reconnaître leen kàttan na leen may leen doole ñooñu bi ñu amee dem ba am doole dañoo am yeneen pratique yoo xam ne dafa xaw a wuute tuuti ak li nga xamante ni moom lañ xamoon ci seen diine ay évolution tàmbalee di judd dafa dem ba ginnaaw bi nga xamante ni roi wu France bi dal na ci seen kaw dal di leen di moom tamit faagaagal massacré leen seen chef bi nga xamante ni moo nekkoon le grand chef di Jacques de Molay mu rey ko ci jamono jooju ñoom ñëpp mu rey mu rey leen rey reyin bu metti dafa am ci ñoom ñoo xam dañoo rëcc daw surtout fu mel ne Portugal fa lañ duggoon nee nañ loolu moo nekkaat lu def évolution ba juraat les sociétés secrètes yi nga xam ne moom la ñuy dund ci jamono yu mujj yi

ñu def benn xëy na jaamaarloo diggante la région et la tradition li ñu namm ci la tradition mooy diine yi nga xam ne ñoo fi nekkoon nit ñi doon noo ko ci seen i maam et loolu dafa nekk loo xam ne obsolète la loo xam ne xam-xam weesu na ko dañu ko war a bàyyi nit ki li mu war a topp mooy raison la war a topp ak li ñu tuddee rationalité fàtte ne doomu aadama ku ku ku ku ku ku limité wu la ku tënku la lool ci xam-xamam et doomu aadama xam-xamam soriwul ñu fàtte loolu mais comme jamono jooju li ñu amoon ci xam-xam da leen yéem dañoo nekkoon ci benn euphorie ndax dañoo nekkoon ci lëndëm lëndëm goo xam ne ñoom orop bi ñu duggee ci euh, li ñu tuddee les siècles de des lumières loolu ñu dajale ci xam-xam te jëlee ko ci Orient jëlee ko ci arabe yi bi nga xamante ni def nañ seen croisade yi songu l'Orient dem jël fa ay bibliothèques yu mag dajale fa lu bëri ci xam-xam ci wàllu philosophie wàllu mathématique wàllu euh, astrologie ak euh, wàllu alchimie ñu gis xam-xam boobu xam-xam bi yéem leen ñu commencé koo jàng yaakaar ni léegi ñoom soxlaatuñu fenn xam-xam et am nañ ay boroomi xam-xam yoo xam ne li ñu xam doy na sëkk ba ci sax ay diine yu jóge ci yàlla ak yooyu soxlaatuñu ko ci noonu la ñu summeekoo ci lépp loo xam ne diine la daal di nag penché jëm ci li ñu tuddee la laïcité ci lañ laïciser seen population yi te loolu ñu ko gën a réussir ndax daan nañ ko théoriser mais ñu ko gën Euh, néewala doole église bi ba amatul benn impact ci seen société yi def seen euh, révolution yi surtout bu française bi ci loolu nag la ñu jéem a fexe daal di écarter lépp loo xam ne diine la ci euh, li nga xamante ni mooy société bi ba diine rôlam nekkatul di yar nit ñi di di di fas façonné li nga xam ne mooy société bi di jeexital ci moom ba société bi di tënku ci ay valeur éthique valeur morale yoo xamante ne dañ naan lii ci suñuy diine lañ ko jëlee léegi diine loolu nekkatul rôlam bu nit ki munta ñàkk gëm diine na ko yamale ci boppam lu ñu tuddee le sphère privée na yem foofu mais bu mu nekkati luy am impact ci li nga xam ne mooy population bi loolu ci lañ euh, may doole li nga xamante ni mooy lekkool publique pour mu remplacer yar ak jàngale boo xam ne diine moo ko daan def ci turam ñu ne léegi soxlaatuñ la lépp lu soxla ci science mën nañ ko jël jox ko ay nit yoo xamante ni dañ koy jàngal suñuy doom te lenn ci diine dootu ci rax léegi ci loolu la ñu écarté diine ci suñu société yi. membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah. umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam